مدادي وأقلامي لكم عام جيشش سرورا عظيما لانتهاء عام بكسفي جرجف برم توبا جرجف برم توبا بقول لفه سنجام سيلغيني طالب سنجوا مكبي سنجام لول سنجام دفال دي واو جرجف جرجف جرجف دي سيرن توبا جرجف دي سيرن توبا maanaam lépp lépp lépp lépp lépp lépp Sëñ Tuubaa ñu ko defal ndax ndax bés la boo xam ne nee na li ngeen gis si man ba tàngeen ngeen topp ma si bés bi laa ko amee nee bés bi mooy sama bés mooy seen bés nee na aljana amul bés waaye bés bi bu dikkee neexatu aljana wi day dolleeku ba ñëpp xam ne dolleeku na bu ñu ne suñu borom lii lu ko waral mu ne leen bésu Ahmadou bi moo dellu si kon safar moom moo ñu taxaw gore mooy bés bi mu tikkoon suñu musaaka nee na dogoon ak demam gi wolof nasaraan te kon billaahi ñëpp dem niiraan yi kon bés la boo xam ne waa njaareem gépp gën nañ murit yeeg tijaan yeeg xaayit yeeg ndaayeen ñëpp ñu maase fa séenee sant Serigne Touba si li nga xam ne waxoon na ko muy raamu masiri ila Jurbel la daa lasisin rawaaye no sirema fii séeri ma raamu andi gën may andi njaareem seenuk deela ak seenuk seenuk toskare man nag andi gën may andi njaareem samak des la ba faw des googee nag moo waral sëriñ bi ba mu jógee ren la cent ans cent ans ay gone juddu xamuñu koy sëñ Touba waaye seen xol sëñ Touba fees ko del ñu wër di sant sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba kii mooy Dame Sène taalibe sëñ Touba mag bi jërë ngeen jëf